mënul ah donc loolu loolu loolu nga jàpp ni moom mooy mooy mooy leen c'est-à-dire amul message boo leen di véhiculer parfois ci pecc parce que da gis ay ballet national ballet yi mais est ce que yéen seen fecc du par ambiance nii rek tax ngeen koy def waaw mais dañuy dañuy chorégraphe dañuy fecc dañuy chorégraphe des fois ñu wax hmm. waaw bien sûr fan fan ba anam ngeen waxee fecc ba ci digg ba arrêté nga wax mais du ci biir fecc bi ngay waxee ah ci danse amul communiqué ci fecc bi amul na am na am na ñuy def communiqué hmm. am na ñuy communiqué ci fecc bi bien sûr mais ci wàllu animation bi ngeen wax moom xaw ma ci dara moom. non non ci fecc bi la ñuy des ba léegi fecc bi lañ a xam ba léegi exactement parce que njëriñ bi am ci ci clip bi clip bi sax d'accord peut-être ñooñu. c'est pour man moom bale. ah man defuma bale non. da ngaa defoo defoo bale. ndax non xam nga nag xam nga ndey dafa ñëw. Mhm. révolutionner fecc bi. ci mhm. côté am. Mhm. Euh, jànguma ah jàngoo fecc. don la quoi est-ce que du moo leen jural manque de professionnalisme. bi jànguma fecc don la ko c'est pas une question de manque de professionnalisme. la kon lañ koy wax xaw ma. Mhm. ah man jànguma ko sama sœur laa daan gis muy fecc suy dem rek ma topp mais jànguma ko. mais fecc dañ koy jàng tey ñoom Papa Ndiaye ñii ñoom Khalifa Mbaye ñoom Djili Mbaye ñoom Yelli ñoo ma daan yóbbu Mbour ma daan concourir ay saaku ceeb mais jànguma fecc. da nga ko don la nii rek nga def. waaw mais sama ki ma gënoon inspiré wu nag muy Ndeye Khady Ndiaye. Hmm. ak euh, Collé Basse ak mère ko hmm. waaw. mais fecc rek bu bànn yaa. waaw. mais fecc dañ koy jàng. dañ koy jàng lan moo tax demoo demoo jàngi ko. pour mën a professionnaliser carrément professionnaliser li ngay def nii. am na de mën naa ko. Hmm. kon jaratul bi ma demee nag bay fecc. bi ma demee bay fecc ba xam ne man mii mën naa ko mm-hmm. su ma daan répété ay fecckat yu mag dañuy ñëw taxaw di ma assister mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. di ma dolli xam-xam. mais jànguma bale. comprendre nga li a wax. d'accord ok donc da nga def da nga ko da daf ci toll am envie rek def ko mais sans pourtant nga dem. gën a gëstu ji pour mën a euh, buñ la woowoon ci leneen loo xam ne bokkul ak ci li ngay def est-ce que jaakaar yi da nga ko mënoon def yow. man fu ma waay woo ma wuyu la mais duma ma fecc bale parce que mënu ma ko. kon amul kon da am limite ànd ak moom da nga am limite du ànd ak Youssou Ndour mais ne est-ce que xam nga nag xew mën na lu ne parce que euh, euh, léeg-léeg ñun sax ñu invité ay tuune non Bijou ay ay cuune day cuune day wuy ma xew day waa tout safar xew na ci barki dem ci fekk Bijou xew day lépp hmm. Bijou man day gay réew mi toll man day gay dafa def ni Sénégal ba mu daj barke Cheikhul Khadim doo waat Serigne Touba mu ko ay caaxaan hmm. koo wax mu ne la ndéygee dafa mën a fecc bari na bari na jànguma ko de waaye dama ko mën ci sama deret la nekk. ba léegi nii dafa nekk sama deret. comprendre nga. jànguma ko mais sama sang la bokk ci sama deret la bokk. est-ce que jamono nekkul yaa fi sa zone. non non non non non non ay fecckat yu mag a ngi fi woon. non mais d'accord fecckat yu mag ay fecckat yu mag ngi fi woon. yu ay fecckat yu a ngi fi woon. c'est que dafa am loo xam ne yàlla moo koy def ci nit. mooy xew bi. non c'est pas une question xew. Mm. gis nga euh, xam nga lan moo bon. Mm-hmm. ñàkk xew waaye xew-xew yi aayul. Mm-hmm. te Sénégal dafa bari ñu mën a fecc pire surtout moment bi ñu nekk nii xale yi dafa am ñu ci mën a fecc pire pire pire. man fecc moom ma gisoon démb laa gisaatul tey. Mm. waaw. <laughs> bariwul ñu ko ciy def ana moom. ah laaj am na ñu koy def mais bariwul am na ñu koy def mais bariwul. mais utilité bi kon gisoo ko. non non. kon ah ah fecc mi yàqu daal nga bëgg wax. non day ko waxuma fecc mi. dafa yàqu non man maa ni la. Mhm. am na ñoo xam ne dañ koo mën. Mhm. ba léegi nii dañ koo mën. kanaa joxoon la sa WhatsApp. Mhm. mais am na ñoo xamante ne dañuy yàq fecc man des fois damay soog di seetaan damay. damay lan moo yàq fecc bi selon yow. parce que ñi mënul ñoo ko yàq. ba pare solo li ñi ñi mën te xale yi mën bu ñu nee bërit nga bàyyi àdduna. ñu nee bëreet nga bàyyi àdduna. parce que kàddu laa la mais mais yéen nangulul leen xale yi man. non ah man de man Guèye moom ma ci loolu man bokkuma ci loolu man xool bu set wicc laa yor bu weex tàll comme nii man dama bëgg ku man a fecc su ma gisee ku mën a fecc sama rongoñ ñi day sotti sama chair de poule yi taxaw dama ko bëgg. Mhm. man dama bëgg ku mën a fecc. te xale yi ñoom bu ñu duggoon nga dugal le ñoom ñu ci bari dinañ ñu déggee dafa ñàkk ki ñaan tagguma sama bopp de mën naa la ci sutel ay tour 10 rek. soo ma ko mayee ma tiital ci. ci ñi mën a fecc. Karajo dugalal ñu Fatou Wara ci ligne bi. ah 88 628 14 13 mu ngi ci ligne bi. waaw jàpp naa ni euh, man bu ñu nee fecc fii ci réew mi. ah ci Fatou Wara la ñu commencé ci la ñu yem euh, léegi kon nag fi nga nekkoon sama xarit bi. yéen a ma laaj question pare laaj question da ngay lim ci ñi mën a fecc diis yow. non déggoo yi ñi mën a fecc. Mm. Fatou Wara laa lay jiitalal. parce que man ñàkk utilité bi nga wax ci fecc bi. Mm. daf ma yéem. Fatou Waré loo xam ne utile nga ne ci ba tey moo utile tey am non non non non non eh, ci fecc mi ba léegi de non nga nekkoon ci maa man nekkoon ci man fecc feccatuma de waaye des fois samay rab samay ay rabu ndëpp laa yor bu ma déggee sabar damay yëngu samay rab a koy laaj sa rab yi neex rek sama rab yi bu déggee baara may ji wàcc wala ndëj gu wàcc rab yi yëngatu damay daanu par force nga ma fëx non yooyu dépassé naa ko yéegi dépassé naa yenn yi mag laa dépassé naa yéen def man waaw parce que c'est normal dem naa ba samay rakk nekk fi ma nekkoon dama leen di bàyyi ñu doxal te dañoo mën li ñuy def kon amatuma dara lu may prouver ci àdduna bi sax laa wax amatuma dara lu may prouver mais ci ñàkk utiliser est-ce que nekkul wane cër yi gars yi di wane seen cër moo tax lu tax feccikat yi ñoom balaa ñoo gën a mën a bég rek ah man de wax dëgg yàlla man bokkuma ci loolu non dama ci yow li daal ñoom amadi nii lan nga koy tënkee euh, euh, ma leen ma saw d'abord ma leen di masaw d'abord man sama wax du neex moo tax ñu bari naan damaa réew ñi naan damaa ñàkk kersa ñi naan dafa ëppal ñi naan dafa fuuy ma ne am na yoo xamante ni ñu ngi koy sëgg hmm, da jàpp ne ñoom li ñu def yoon mais comme maanaam li ma ko mën expliquer fecc nañu loolu war wada daa obligé la woon xanaa kon ñu seetaan loolu ñoom hmm. boobu dañoo baal ñoom dañoo baal te ñoom lii sax bi ñu ko feccee seen ñaari tuñ laalantewul ci kaw chaîne bi nii esplanade bi seen ñaari tuñ laalantewul waaye natt moom bu ñëwee fu ne lay ñëwee. Hmm? ndogalu yàlla bu ñëwee fune ne yàlla nañ yàlla musal ci cat. Hmm. li cat la rek tey dañuy gën a yeer ñun daf ñuy gën a yeer parce que nag ñoom ñooy suñuy góor ci association bi amet ak amati. Hmm. ak ñoom yelli cuun ak ñoom Pa Moussa ak ñoom Jili Mbaye ak ñoom ñooy suñuy góor ci association bi. tey bu leen lii daloo ñu ñëpp ko méttitlu ñëpp ko méttitlu mais ñoom dinañ xam. mais gisuma leen ngeen génn wax. non parce que mënuñu woon wax. lu tax non parce que ñu ngi doon ñaan ñun d'essentiel mooy suñu association bi dajale nañ ñun la am jëlal leen avocat. jëlal leen avocat mais waruñu génn wax parce que fi situation bi tolloon. pourquoi kon da ngeen ragaloon génn wax. non dañ ñu woon ñun. tant xamuñu xamaguñu fu muy mujjee. ngeen génn wax loolu rek. ngeen def conférence de presse. génn wax bëggoon nañ def conférence de presse pour soutenir leen. waaw président loolu la waxoon président loolu la waxoon mais ñun ñëpp ñu manqué ñu ne nañ xaar nañ xaar. yaakaaroon ngeen ne ñoom kenn ci yéen bu leen daloon ñoom xaar boobu ngeen xaar ñoom dinañ ko xaar. ah je sais pas loolu wóoruma loolu da ngay woo président Pa Moussa nga teg ko fi après nga laaj ko moom dina la ci leeral lu bari parce que man du la non non non man damay wax li ma xam. mais ci dëgg rek la yàlla bëgg man ci association bi laa bokk la Mm. maay organiser programme mais dama ni côté boobu ñun la ñu war def nañ ko suñu diggante Amady Badiane ak Ameth Thiou ti association bi mm-hmm. waroon nañ génn wax mais dañoo waxtaan ak ñu ne nañu xaar mais loolu ñun waxtaan nañ ko ñun ba pare parce que bu ñu saggantuwul li ñu def ñoom Amady mën nañ ko fi defaat ñeneen ëllëg bu ñu génnul wax loolu waxtaane nañ ko ba toog mm-hmm. te ñoom ay innocent rek lañ ci nag vraiment ak d'accord dañ la bàyyi nii nga demaat nii <laughs> dañ la bàyyi nga wax nii rek de. dañu ñaan njëkk rek man maa ngi leen di teg toog di ñaan njëkk nii rek de. non man am na question bu ma la laajoon sànq mais daf ne dañ ko da nga ko cof rek. muy après ñu ñëw ci kaw Amady muy fecc bi nga xam ne tegginewul ak cër yi ci wane ci jamono ji nga xam ne euh, ak façon surtout façon fecc. xale yi taxaw di seetaan voilà ak xale yi taxaw di seetaan chaque année fecc bu bees génn chaque année. man am na euh, euh, bëgguma tudd benn tur. mais chaque année ñu ne fecc bi am na du durée durée de vie bi du mat un mois mun naa sax xam nga ay mu laay tegin yàgg na te ba léegi mi ngi mi ngi xew a yeneen ak yeneen lan moo waral yàqu googu waa gis nga mooy li may wax chaque jour rek nee naa la fecc boo yaakaaree ni boo wanee say cër ci la leen nit ñi di gën a bëggee yaa ngi juum mais est-ce que ci ñu ko gisee au début mais nday xam nga boo waxee loolu ndeysaan c'est bien boo nag parce que tamit danga ñëw rek daan ne da nga reculer pour mieux sauter da nga tegg sa tànk parce que yii day contradictoire ba nga xamante ne bu ñu indiwaatee démb rek yi ngay wax yëpp day wuteeg li nga doon def. waaw démb comme lan man gàcce ngaa